Abdul Petrola si Pojan. Abdul Petrol. Lafa se de Marfa Fako. Wa borom petrol sanga mar binde san. Lambu ñu nak ya. dagge ko. Wa borom mar. Way kati tambale ya, guñu. adom de chapa ngok de chapa ngok. Waaw si kam bay so soga ñew. Waaw ana chat. Abdul Petrol si Pojan no ma hola ziara ñëpp ne saan ziara am na beneen bu samp bu jën ci wet gi ziara wa gett bay ne len gariba baa ngi ñëw bu len ragal loolu wéeru gor bi ha ya. loolu mari ne am na yak na xale góor yëpp daanga ba kenn wóoratul ma ne noo garaawu bale ñu jox len li ñu lo rek ziara wa ci ak ñu wet ne saan ak bëgg lorango adresse ngor na mu jabo dik Boy Faye Gaskel